ñu ñëw naan ay veuves lañu elles sont pas du tout des veuves. Hmm? ce sont des remariés. xam nga may leen ma tuuti rek. waaw daloon nañu fi. non seulement ay veuves dañoo mais dañu remarié. Hmm. kon dootuñu veuve. duñu veuve mais ñooy ñooy pulluler les ministères loolu moom seen jëkkër yee ko a te ñenn ñi di déclaré. te ñenn ñi ñenn ñi yàlla may na leen macha allah seen jëkkër am na lu mu leen bàyyil. soxlawul ko ñoom dañu ñëw ci ñun parce kay jaay kay bay jaay gerte caaf ak bay waas jënd ak yëpp ñu ñu ñu amuñ ci benn restriction waa FNR waa waa IPRES ñu ñëpp la ñuy la ñuy encadré mais on ne nous écoute pas kenn faalewuñu kenn toppatoowuñu bër ka démb rek j'ai j'ai remis au au PCA de l'IPRES xam na moom bu baax ma nekk monsieur le PCA dama am bët dama am ulcère sama bët fi mu nekk li ma amoon yëpp maa ngi koy fay fay clinique bi faji sama bët je lui je lui ai tendu un euh, une de gage ne ko nag bii ce sera la dernière monsieur le PCA parce que xamante nañ mu ne ma amul benn problème mais on attend toujours mais bu ñu la yow soxla problème yi nga am bu la la war a déglu bu la dégluwul mais da nga koy génnee man chaque jour que Dieu fait chaque jour que Dieu fait ñi may ñi may ñi may sollicité dafa ba demee ay yàlla yàlla mais wax tuuti xaalis may kii tey su ma amee tuuti teg ko fa tuuti kenn ñëw ñaar ñëw mais ñu yàlla dimbali aussi on a des am yàlla may na ñu ay partenaires. xëy na état faale wu ñu toppatoo wu ñu mais yàlla am na lu ñu indi. on a des doyul doyul du doy. parce que partenaire ba lay may lii nga sedd ko toute une une une association nationale parce que dara bu fa wàccee damay woo tout les présidentes du Sénégal jox la sa loo nga nga yaa xam noo noo koy drainer même ay yére am na ñoo xam ne mu mënuñoo ñaan am ñu tàllal loxo yàbbu yi billaahi lu ñu soso da vingt dañuy dem suñu mbokk yow yow mii nga génn sa armoire jox ñu bu ñu ñëwee dajale paqueté ay dàll ak ay saak woote mais dañuy mën ni du mais tamit loolu ci jaamu yàlla bokk état jàppale wuñu est-ce que reconnaître na leen comme il faut ba pare bala mu leen di jàppale. nous sommes nous sommes dans le journal officiel. ñu def si récépissé au au début on était que association des veuves du Sénégal seulement après influence bi Marème fay Sall moo ko dugal loxoom.

mais amuñu audience pour wax le vrai frais de problème. parce que ñu même ñun on a nous on national FNR ñëpp dañuy ñëw jël si ci ci national bi waa FNR ak waa keneen ak keneen dañuy ñëw jël si ñun. donc moo am damay dañuy woote toutes toutes les régions ñu ñëw gis tam gis waa douane dañu leen di yokk ñu. Covid bi Covid bi. mais du Covid yow. Covid laal ngeen jox nañ leen ci banque. ma ne restez di lekk ba 5 mois la ñu mën defar. bi gisuñu dara. gisuñu ñu ne ko adhéré ku àggati ñëw di nga gis. man sama koñ sama yaa ngi dégg waaw maire yi ngay wax maire yi xoolal. maire yi maire yi du ñu joxe libéru ceeb du ñu joxe genn waa libéru ceeb ñun dañu en rade amul aucun maire au Sénégal bu ñu tenir en considération les amul aucun maire au Sénégal. man de gisuma ah jeex na tàkk. man du ñu xoolal activité dañuy wër di laajte di def enquête wax ne kii soxla na ko kii soxla ko. les bourses familiales soxla ku ko bourses familiales yi xamuñu ko. kii am na bourses familiales yi xamuñu ko. waaw ak social bi Sall doon joxe quatre-vingt mille. amuñu ko doyen doyen Mamadou Diallo. waaw ah nañu ma waxante dëgg nag euh, pour recadrer pour recadrer un peu ah, pour recadrer yi lan nga yaakaar ni moo mën a moo mën a résoudre euh, situation veuve yi ak orphelin yi. nañu déglu nañu président déglu. c'est-à-dire que schéma schéma bi ñu bi ñu gis ak les veuves là mooy le schéma de